ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir ngeen mën a jot moo leen vidéo boo ko ngir mën a xam li nga barakaatu maa ngi eh, sant yàlla bu baax a baax a baax maa ngi julli ci ngën gi mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi sant bu baax samay ñaari waajur. waaw waa Sénégal nuyu naa leen maa ngi am mbégte lool waxtaan ak yéen démb sax laa naroon waxtaan wi waaye nag dama xawoon a sonn lool lool lool lool ndax nag eh, ñetti fan yi ma nga xam ni moom laa nekk ci loxo yoon ñetti fan yu metti la ñetti fan yu tar la loolu dama décidé sol sama tànk dem waxtaan ak Alioune waxtaan ak Seydi gasama waxtaan ak euh, Assane Dioma Ndiaye euh, ndax réew mu mel ni senegaal ñuy jël ay nit yu nekk garde à di leen dugal ci foo xam ne ni ginaar gu baax sax waru ko faa dugal nit ñi di tëdd ci karo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 Euh, wàllu àq ak yelleef doomu aadama mais yooyu yëpp dafa bokkoon rek ci stratégie boo xam ne nii euh, moom lañ jëloon ngir xoqatal ma ngir metital ma ngir sonal ma parce que man daw ma dew ma fenn <laughs> boo ma bàyyi woon ci cour gendarmerie bi ma toog fet du ma dem fenn man moom sama tur dañ koo bind ci sama sama kanam euh, mais stratégie la rek boo xam ni loolu lañu jëloon ñoom pour jéem ma sonal jéem tiital jéem a waaye eh, xëy na peut-être dañ ma xamul eh, yàlla daf ma binde noo xam ne nii kenn du ma tëkku kenn du ma tiital je suis incapable d'avoir peur noonu la ma yàlla binde eh, maa ngi sant bu baax waa Sénégal dafa am kilifa gu mag gu ma woo démb ni ma lu ne xew na ci réew mi waaye yow soutien bi nga am maanaam taxaw bi nga am jafe na lool ñu gis ko ci commencé am problème fii ci senegal dama bëgg trop ci waa senegal waa senegal dañ ma wan loo xam ne nii tax na jàpp naa ni dama war a xeex man ndax ñu jël la téye la ci condition yu mel noonu waa réew mi yëpp taxaw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 ragalul tey ragalul ëllëg toogul tey toogul ëllëg ñetti mbir rekk mën a am benn bal perdu rey ma ma dem fegook sama wasila cheikh al islam cheikh ibrahim Niass mu nga xam ni mooy mooy xar dënd góor yi dugal ci maarifa nga doon arif billaahi walla ma peggoog góor gi nga xam ne dama ko bëgg ndax lim mu bëgg ak yonent bi muy cheikh ahmadou bamba daal di